suñ nekkee ba tey Sénégal ñuy wax ci waxu justice dafa am débat yoo xam ne Sénégal waroon nañ ko dépassé lii di indépendance la justice waroon nañ ko dépassé bu yàgg li muy wane rek mooy Macky Sall différence wala euh, wute gi am diggante kàddoom ak li mu doon sénégal Sénégalais ak li muy def tey kon pour man yooyu ay débat secondaire la te textuellement ñetti fànn yi nga xam ne wala ñaar ñaar ba ñett yi nga xam ne mooy problème indépendance de la justice ñu naan président la république warul jiite au conseil de la mais président war na am yeneen yi muy toppatoo lu dul ay ay ay ay au conseil de la magistrature war na war na am leneen lu mu toppatoo moom ak ak ak ak ministre de la justice am wala ñu naan amovibilité wala inamovibilité des magistrats gis nga question yi man pour man nekk fi di ci wax sax dafa wane rek ni Sénégal dañoo def recul bu extraordinaire l'exécutif ku ko yàlla dénk sénégalais yaakaar la ci lu bëree bëri bëri war nga am yeneen yooyu toppatoo lu dul téye waaye nag su dee yow yaakaaroo ci bilan juboo jubaloo yaakaaroo lu dul jël tous les instruments de l'État yemoo ci justice administration bi tey ñu ngi koy utiliser à des fins strictement politiciennes diplomatie bi même chose Renseignement généraux yi jël renseignements généraux yëpp naan leen seet leen Sonko bis bu ne nga ne ci lool ca booba jamono ña ngay sàcc suñu doom yi fii di leen assassiner di leen violer nga waroon jël les moyens de l'État jëmale ko ci loolu waaye ñàkk fayda ñàkk fulla boo xam ne naan da ngay traquer ay adversaires politiques su dee yow yaakaaroo ci programme yaakaaroo ci réalisation naka laay def ba utiliser administra ci justice pour casser des adversaires politiques parce que li ñuy wax ni yëpp pourquoi les gens disent que les dossiers sont politiques mais c'est des dossiers politiques c'est des dossiers politiques parce que tay su won dossier politique directeur de poste bi ñuy wax Siré Dia nekk fii en liberté parce que li mu def poste moom xam na ko l'Assemblée assemblée nationale ba banque mondiale bind c'est du banditisme li mu def poste su doon justice rek euh, Cheikh Omarou Anne nga xam ne rapport bi tax ñu dàq Nafi Ngom Keïta li mu bind mooy dañ ko war a dàq te bu mu mus a exercer ti responsabilité publique ba pare nañ ko traduire devant les juridictions kooku waroon na dem tey Podor di fa organiser meeting u 200 millions xam nga 300 millions kon loolu mooy problème mu Sénégal mooy politiciens yi ñu am seen xeetu politiciens ñoom te Macky Sall nekk ci moom xalif général ci ni mu koy defee lii muy def njàmbarte amu ci su dee yow administration nga yaakaar ak justice ak pour battre de adversaires politique bu ñu waxee nga ne lion ki door wala ca ca kon problème mu Sénégal yëpp mi ngi foofu tant que nag rasé wuñu loolu mhm. keneen ku ñu jël ci système bi ñoom ni ñu mel bu ñu nekkee opposition digee lu ne bu ma ñëwee dinaa def lii ci justice bu ma ñëwee dinaa def lii ci administration bu ñu toogee la ñu nàmpoon la ñuy tariwaat rek kenn mënu ci dara kon problème bi foofu la nekk